Ah, Mermoz Sacré-Cœur si li ñu yeex yegg si fii ñu ngi woon Wakam on a dû d'ailleurs demander au maire Samba Bathily pour nous parce que xamoon naa ne 15 heures ba léegi yéen a ngi toog di xaar bon nag ñi ngi jégalu bu baax. may nuyu d'abord sama yaay koo xamante ne kenn la si man saman dëgër laay si biir alliance pour la république. moom la bu ma jaaxlee si moom laay daw buñ ma naree ba ma ma wéeru si moom bu ma amee ay rangoñ ñëw mu fombal madame la ministre Ndeye Binta Gassama maa ngi lay nuyu aw sa fay maay jëm rek ba faw mais du ma la mas a fay parce que nag ku fàtte démb buñ la sa ngor des may euh, jël nuyoo sacré di ko teg si loxoom mu joxal ma leen ko madame la ministre Areyane Thiam lay nuyu di gëm ne li Seydou wax léegi c'est la vérité booy dénk da dénk ku man danaa ñëw sur les profils tout may euh, nuyu monsieur le ministre Serigne Mbacké sama xarit bu ma nee sama xarit nag du xarit de circonstance mon bureau à la maison des élus locaux en tant que coordonnateur de la CAEL, mon oncle Mamadou Diop m'a appelé, l'a appelé lui, et lui a dit jàppante nag Ablaye parce que yéen a méngoo jamono boobu on est ensemble. C'est ce même oncle qui me lie au docteur Lamine Thiam. docteur maa ngi lay nuyu parce que jàppale nga Mamadou Diop bu baax a baax décentralisation dara réer la li may wuti nii bu ma ko amee di nga bokk si ñi xamante ne dinaa ñëw wéeru si nga nuyul ma madame Thiam bu baax parce que quand j' étais directeur du pôle elle était à Claudel di ma jàppale bu baax nga nuyul ma abi maa ngi lay ay jigéen ak ay góor am valeur rek manche ñoo fi nekk ñoo xamante ne dans deux mois incha allah danañu wan waa Sacré Cœur que on peut cette commune là la gérer autrement sur la base de valeurs et sur la base d'une certaine expertise mbon maa koy nuyu bu baax baax di nuyu samay doom parce que fii dama fi am ay doom bu ma ne samay doom rek am nañu tàcc ñooñu samay doom lañ ñoom awa ñoom polel et samay doom yi bopp la maa ngi leen di nuyu di leen wax ne gis naa seen taxawaay si sama bopp la convergence des cadres am nañ fi seen investi fii si Sacré-Cœur mooy madame Astou Thiam qui est directrice de du centre traitement dugg naa nag si gaal gu dul parce que ku jum képp ku mu rek xam leen ne damaa bëgg teeral njaal bi bu gaaw tax mais sama xel ak sama xol mu ngi si yéen may nuyu waa Benno Bokk Yaakaar parce que fi ñu toog nii Benno Bokk Yaakaar la et la grande majorité présidentielle boo xamante dafa bëgg jàppale son excellence le président Macky Sall il faut que ñu Mbacké mooy di ko moom Sacré-Cœur Mermoz Zator Mbaye mooy mi Mbacké moom yaa moom Sacré-Cœur Mermoz may demandé waa Sacré-Cœur Mermoz ñu jàpp parce que le dysfonctionnement bi ñu war a corriger à Dakar ñoom ñoo su war a njëkk. Dakar yaa ko moom. Dakar yaa ko moom. Dakar yaa ko moom. Dakar yaa ko moom. Merci. merci beaucoup Bonde mairie Dakar may ki ko moom jël na disais tantôt, il s'agit de corriger un grand dysfonctionnement ou une grande incohérence ou une fracture très grave dans la gouvernance du pays. Notre ville capitale, Dakar, la ville de Dakar, gouverné par ñoo xamante ne de 2009 à de à maintenant n'ont fait que la gouvernance part de l'opposition systématique au plan Sénégal émergent loolu la lay indi day indi ñii di gas ñii di suul te loolu malheureusement moom la ñu tàmmal si Dakar président Macky Sall di liggéey pour xëcc Dakar mu yéeg dem vers l' émergence am ñu nekk si suuf di xëcc pour Dakar bañ a dem si émergence loolu mooy incohérence boo xamante ne buñ ko réglé wul buñ ko corrigé wul Dakar day def benn pas en avant par le président Macky un pas en arrière par li nga xamante ne ñoom lañ ko doon bu boobaa sur place mooy kon nag Zator am nga une mission importante mission bi xam nga mooy lan da ngay dóor neuf bi si gannaaw yow laa teg demal nga pointé nga pointé mooy lan mooy taful pour que sawaay bañ yëg bu ko defee ñu déroulé ñu déroulé mais ma lay ñaan nga def ko si yar ma lay ñaan nga def ko si dal ma ñaan nga def ko si responsabilité li ma ñaan xam naa ne mën nga ko xam naa ne noonu ngay dunde parce que tout culture tout habitude tout est nature junju doy na borom xel ñun nag dañoo bëgg defar Dakar ñun dañoo bëgg liggéey Dakar avec les jeunes de Dakar la jeunesse de Dakar wax leen ma si fukki at yi mujj quel est projet de jeunes ñu leen jox na leen lii pour les jeunes de Dakar nous voulons faire Dakar pour les femmes de Dakar les femmes de Dakar ak ville de Dakar da ngeen si bokk actuellement famille bu ñu jógee dans le cadre de leur entrepreneuriat dañ naan nañu dem PAMECAS madame la ministre de nañu dem si institution de microfinance nañu dem DER bu ñu bëgg formaliser wu nañu dem APIX nañu dem chambre de commerce nañu dem feneen mais kan nga mës a dégg jigéenu Sénégal bëgg am lu mu jëriñoo ne jóg naa maa ngi dem ville de Dakar amul amuñu xereñ boobu Ablaye Diouf Sarr maire de Dakar dana leen ubbil guichet boo xamante ne da ngeen xam ne ville de Dakar am na njëriñ pour jigéenu Dakar nit taxaw ma koy gis te ngeen gisal lii kon nag jigéenu Dakar am nañu place ci ville de Dakar commerçant Dakar am na place ci ville de Dakar pêcheur u Dakar am nañu place ville de Dakar ouvrier wu Dakar am nañu place ville de Dakar Dakar du xeexukaay les acteurs communautaires Dakar am nañu place ville de Dakar. merci beaucoup ma terminer nag parce que toogaay bi yàgg na damay wax sa toog cette commune là de Sacré-Cœur la commune de Sacré-Cœur li may wax bind leen ko leen ko parce que le 24 janvier danañu ko vérifier la commune de Sacré-Cœur au soir du 23 janvier sera une commune Benno Bokk Yaakaar mais vote bi ñaari vote la ñaari yoon ngeen di di ngeen dugg si seen bureau de vote fekk fu bulletin yu bari ngeen gis bu marron bu am bopp fas bu beige ngeen dem jël go dem votel Zator Mbaye pour mu nekk maire de Sacré-Cœur la ngeen dellu si jël le même bulletin boo xamante ne Abdoulaye Diouf Sarr mooy tête de liste de ville ngeen votel Abdoulaye Diouf Sarr maire de la ville de Dakar pédagogie boobu moom laa bëgg ngeen appliquer ko voilà le bulletin may terminer par une invitation maa leen di invité suba am na xew-xewu si Yoff maa ngi leen di jox invitation mais bu loolu passé bëgg naa ñëw di ñëw di ñëwaat fii si Sacré-Cœur Ndar ma lu tax parce que sawaay il faut que ñu fekk ko jusqu'à ces derniers retranchements ça c'est extrêmement important